أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñu war a jël aaya 127 mu nekk benn aaya bu nu sunu boroom subhanahu wa taala di jàngal ay mbir bi ci njëkk mooy taqrir mabda irsi nisa wal atfal aaya bi yàlla mu ngi nu ci jàngal subhanahu wa taala principe bu saxuwaay ndono jigéen xam ngeen ne ci jamono balaa lislaam ñëw xam ngeen lu fi nekkoon mooy jigéen amul paar ci dara jigéen du woon bindeef mu yàlla bind ci gis-gisu ñenn ñenn ñi jigéen seytaane la ñenn ñi jigéen du nit ñenn ñi jigéen sobe la bal sax am na ñu dem ba ne dañoo war a bënn ñaari tuñ yi daa ciy def kànnaar tëj ko ndax bu waxee day lakk àdduna moom la ñenn ñi gise woon waxuma la nag ay ndonoog ay mbir yoo xam ne jigéen def ko war a am comme ni ko góoru amee loolu moom kenn xalaatu ko woon sax moo tax mu ne taqrir mabda insin nisa yàlla moo saxal wàcce téeréem yónni yonentam muhammadun sallallahu alayhi wa sallam jox ko alquran jox ko diine lislaam mu ñëw saxal ndono jigéen beneen bi mooy ak xale xale yi tamit ni ñu xàññe woon jigéen ñi la ñu xàññe woon xale ya loolu lépp sunu borom subhanahu wa taala ci ay xéewalam lanu yàlla baaxee diina jiini lislaam mu ñëw saxal ndono jigéen ak xale waaye yemul ci saxal ne ñooñu dañoo am àq ci seeni alali baay ak seeni alali jëkkër waaye wal muhaafazati ala maalil yatim ala maalil yataama sunu borom subhanahu wa taala noonu la saxale nu war a wattu alali jirim sunu borom subhanahu wa taala daf fonk jirim jàngeen ci alquran ci saari kaw ba ci saari suuf yàlla di dénkaane mbirum jigéen mbirum góor mbirum xale rawatina nag mbirum jirim fa amal yatim fala taqhar yàlla ne jirim bu ko kenn gëdd di ko arsaleek di ko yuux jàngeen sunu borom subhanahu wa taala daan ne tagg ay nit yoo xam ne dañuy joxe seen alal ci jafe-jafe di ko jox ñu am tartar ba yàlla ne yatiman za maqraba yàlla tagg ki nga xam ne day jox ba jox jirim jirim boo xam ne daf ko jege waaye yàlla ne tëkku ñi nga xam ne dañuy lekk alalu jirim mu ne inna allazina yaakuluuna amwaala alyataama zulman innama yaakuluuna fi butunihim naaran yàlla ne ñi nga xam ne dañuy lekk alalu jilim te lekk wuñ ko rek lu dul tooñ ñooñu de safara lañ ni lekk seen biir yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ku yar jirim nga rafetal ci moom mu ne ana wa kaafilul yatim mu ne ku yar jirim nga rafetal ci moom mu ne man ak moom ñooy mel ni aljanna yatim nag jirim mooy ku baayam gaañu léeg-léeg olof yi ñu ne jirim mooy ku pàppaam gaañu baayo mooy baayo mooy ah ku yaay gaañu léegi nag ku sa yaay gaañu sa baay gaañu noo tudd kooku mooy baayo ndax kooku moo gën a metti le ndeysaan ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci bisu julli mu romb ay xale di fo mu romb benn xale ndeysaan mu ngi ci benn ruq rek daal di toog mel ne picc mu tawte xam ngeen picc bu tawte picc bu tawte kan moo xam bi picc su tawtee nu muy mel ah waaw sedd guy ndeysaan nekk ci benn ruq rek ne nii yonent bi romb xale bi mel noonu mu ne xale bi lu tax demoo fooyu ci xale yi lu tax sanguwoo lu tax soluwoo tey nga bokk ci feet bi comme ñëpp mu ne ko aw ma ndey ak baay bu ma ko defal yonent bi daal di koy jël yóbbu ko kër ga daal di koy jox Fatima mu sang ko ba mu set solo ko yére yonent bi ne ko ndax bëgg nga Ali nekk sa mag mu ne waaw ndax bëgg nga Fatima nekk sa mag bu jigéen mu ne waaw ndax bëgg nga Khadija nekk sa yaay mu ne waaw ndax bëgg nga Muhammad nekk sa baay mu ne waaw yonent bi daal di jël xale boobu ndeysaan xale bi màgg gudd fan nekk ci liggéey lislaam bi ànd ak yonent bi ba bis yonent bi génn àdduna mu génn ci mbedd yi moom xale boobu naan ñàkk naa ndey ak baay nag tey tey laay doog a nekk jirim nag yonent bi moom noonu la mele woon ci jirim bi muy dénkaane jirim li mu ci dénkaane moom yonent moom loolu la def moo tax yàlla ne ñu yonent bi mooy seen royukaay ndax moom lu mu dénkaane rek def na ko mbokk yi sunu aaya bii ñuy jàng tey daf ñuy soxalal ne jigéen dafa war a donn daf ñuy saxalal ne ay xale dañoo war a donn waaye dañoo war a aar war a sàmm alali jirim bokk na ci criminalité yi am ci Sénégal mooy lekk alalu jirim am na fi ay paa yoo xam ne lekk alalu jirim rek lañ fi nekkee yàkkam duñu lu ni dee rek ñu daw dem sa kër lekk ne tuy affaire bi waaw takk soxna si ngoon gu nekk ñu ginaaral leen ba xaas bi jeex ñu dem uti feneen wala ñu jaay kër gi wala ñu jaay matériel yi jaay bagage yi loolu musiba la loolu ab jullit war na ko mooy tëndiku lekk alalu jirim yàlla daf kaa tëkku ci alquran tëkku ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku lekk alalu jirim safara nga jëm bokk na ci aaya yi yàlla doon dénkaane bokk na ci sàmm alalu jirim wala taakulu wala taakulu amwaalal amwaalal yataama bu leen lekk alalu jirim yi yàlla dafa tere ku lekk alalu jirim yi beneen bi mooy wax xurmatu akliha gis nga araam lekk gi yàlla da ko araamal dafa ne nañ sàmm alal ji waaye lekk ko sax nag dafa araam su nit faatoo bàyyi ay doom li ñu war a def mooy xayma alal ji xam ñaata la def miraas bi su fekkee am nay xale yu ndaw ñu dencal leen seeni alal su fekkee kii denc alal ji nag miskiin la comme xale yi ah lan la ko lislaam sant buy dépassu ci alal ji comme moo leen yar moom ñoom ñoo ciy bokk di lekk dafay dépassu dépasse bu yemamaay waaye doone alal ji ñii ci la ñuy lekk ci laay lekk rek bés bu nekk sama waay nga bëgg rey nag déedéet da nga koy xool comme ci sa alal su fekkoon ne sa alal la ni ngay defee économique pour alal bi du waaj a jeex pour alal ji nga sàmm ko noonu la la islam sant nga sàmmee noonu alal ñi nga yor waaw nga ciy lekk di leen ci lekkal sababu sa lekk mooy li nga leen yor nga lekkaale ci comme ñoom niñ ciy lekkee nga bañ a profité mbokk yi bi isnillahi tabaraka wa taala ngoonub tey sunu yàlla dimbalee loolu mooy nekk sunu dars mooy jigéen yàlla jox na ko paar ci lislaam mu war a donn waaye xale yi yàlla jox na leen paar ci lislaam ñu war a donn waaye yàlla subhaanahu wa taala santaane na ñu war a aar aralu jirim waaye lekk aralu jirim mbokk julli yi dafa araam benn aaya boobu muy aaya 127 moom la ñu war a def darsu tey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكهوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما sunu borom ne wa yastaftunaka gaa ñaa ngi lay laaj yow muhammad alayhi salaatu wassalaam waaw lan mooy sabab ñu lay laaj aaya bi ay atte la sunu borom subhaanahu wa taala wàcce ay atte yoo xam ne dafa ànd ak xereñte ànd ak santaane boo xam ne ñëpp la ko sunu borom subhanahu wa taala sant képp koo xam ne da ngaa nekk kilifa nekk autorité njaboot nekk sa ginnaaw sunu borom subhanahu wa taala sant na la lii pour nga sàmm ko mu ne gaañaa ngi lay laaj wa ma zaalu yastaftunaka fi nisa ñoom de dañu na di la laaj ci mbirum jigéen ñi lu waral loolu pourtant laaj bi war na doy parce que njëlbeenu aaya suratu nisa yàlla problème boobu la doon réglé waaye ba léegi rek daa mel ne daal gaa yi doyaluñu ci tontu bu leen yàlla subhanahu wa taala tontu waaw jigéen ñi moom bu seeni jëkkër faatoo ñoom lan lañu war a am ci alal ji est-ce que danañ donn wala duñu donn nga nit ñi saa yoo gisee ku bëri laaj ci islam rek ku bëri laaj mooy ku bëri problème waaw ku bëri laaj mooy ku bëri problème gars yi dañ doon laaj di laaj di laaj di laaj ba yàlla ne leen bu leen laajate ay mbir yoo xam ne buñ leen tontoo ngeen mer de benn waaye ñoo ne yonte ana sama baay mu ne ko ma nga safara waa ji mais am problème ndeysaan yoon di ma xoolee waa ji am problème mu ne ko kaay waaye ñëw mu ne ko ah pourtant man tamit de sama papa mi ngi safara gis nga yàlla ne bu leen laaj ay mbir yoo xam ne bu leen tontu mu metti leen waaye nit ñi ñoo mel noonu benn waaye fekk na imaam Ahmad muy jàngale mu ne ko sëriñ bi mu ne ah mu ne man de bu may julli xam naa fu may jublu waaye sama problème mooy bu ma demee géej may sangu sama kanam gi xaw ma daal su ma duggee ci géej gi ban côté laa war a jublu imaam ahmad xool ko ba jàng ne ko li gën daal mooy fi nga summi sa yére yi nga xool foofu balaa ñuy ñibbee yére yi nga ñibbee yaramu neen waaw wala ko dëgg de wala ko dëgg de li gën ci yow mooy fi nga simmi sa yére boo duggee ci géej gi ngay arrière di xool foofu sa kanam gi jàkkaarloog yére yi boo reppee ba nekk ci leneen ba gaa yi sàcc yére yi di nga bëgg a génn ci géej gi mu tëla ticc gis nga xam ngeen laaj boobu amul njëriñ waaw comme yenn saa yi nga laaj ku gis ku dégg ku ne waaw ars fan la nekk ars nu mu mel waaw lan moo tax yàlla di wax nañ def nangam laaj yooyu nga xam ne du teggin léeg-léeg nga dégg koy laaj benn boroom xam-xam nee na nit warul wax lan moo tax ñuy julli limaza nu salli limaza na suum limazaana hujju kenn warul laaj laaj yooyu ñu ne ko lu tax mu ne kenn ci ñun bu ko papaam ne woon jox ma satala bi danaan ko loo koy doyee sama fa ne lee jox ma satala gi yow wala defal ma ndox ci satala gi loo koy wax waaw papa looy doyee satala gi est-ce que loolu teggin la bu fekkee nag sa kilifa gii nga ormaal même nit ñi sax kilifa diine yi Sénégal yi kenn du leen laaj d'accord ngeen wala d'accord leen kan moo ñeme fekk kilifa diine ci biir jàkk mu toog nga ne ko asalaamaaleykum sëriñ bi damaa am laaj bu may laaj kan moo ko ñeme dañ naan waay kii kii kii day dóor leen ko waay gaa yi njëkkante la pourtant day yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko doon laaj wala ah ñaata ñoo ñëw ci alquran yàlla naan wayes alu naka bal sax sahaaba yi dañ ko doon laaj radiyallahu anhum ajmain yonent bi di tontu waaye yàlla day tere laaj yu bari hadis bi ñëw na di dénkaane li alagoon xeet yu leen fi jiitu mooy laaj bu bari rawatina laaj boo xam ne yàlla tontu na ko pare ci njëlbeenu saar bi ci surati nisa ci bopp Hizb bi yàlla wax na wàcce na ay yusikumullah fi awlaadikum kon yàlla waxoon na ci aaya miiras lan mooy jigéen lu mu war a am góor lu mu war a am ku nekk ci sa alalu kilifa bu faatu bu génn àdduna lan nga ci war a am waaye gars yi doyaluñu moo tax yàlla ne wa yastaftuunaka ña nga lay laajaat de ñoo ngi nii doyaluñ de waaw waaw ñu ngi nii wërati la wa ma zaalu yastaftuunaka fi nisa dañuñu di la laaj fi sa'ni ma lahunna wa ma alayhinna min huquq kal irsi wal mahri wa ma ila zalika dañuñu di la wërati rek comme niñ ko baaxoo def di la laaj ci mbirum jigéen ñi lan moo leen war ñoom jigéen ñi ci seen alal ak lan mooy àq alal ji ci kaw jigéen ñi waaw yemuñ ci loolu sax waaye ña ngay laaj mbirum ndono ña ngay laaj mbirum can parce que xam ngeen ne islam dafa fekk ñaar yi ñu koy xañ jigéen islam dafa fekk ñuy takk jigéen te kenn du ko jox can way juram day génn àdduna rek wala borom këram benn waay bu am doole ci famille bi jóge fële rek daal di koy sànni kaalaam wala mbaxnaam ne ko ni ma moomee mbax na bi wala kaala bi noonu laa la moomee ndaw si amul lu muy tànn amul lu muy wax yàlla tere loolu ne jigéen bu ko kenn donnati waaye bal moom day donn ndeke jigéen dafa bokkoon ci bagage yi ñuy donn ñu daan séddalee alal ci waaw waaw ni gaa yi def nga gis ku ñëw ne waaw nañ ma jox jabar yi man jël yëpp buub jox la loolu lislaam daf ko tere beneen bi yow yàlla yemul ci tere ñu donnu jigéen bal mu ne jigéen day doon waaye mu ne kuy takkati jigéen na ko jox can loolu lañ naan nix la wala sadaqa wala mahr ñett yooyu yëpp ñëw na ci sharia islam tuddee ko canu jigéen sadaqa nix la mahr ah ah ñëw na ci sadaqa alquran la de aaya la soo indee ñetti aaya yi rek am mont ñetti aaya fi yàlla wax sadaqa ak nix la aca bismillah gaar waaw tey bett naa la de ayoo ñu dem kon sunu borom subhanahu wa taala mu ne jigéen ñi sax léegi ku leen di takkati na leen jox seen can moo tax c'est obligatoire kuy takk jigéen di nga joxe can ak ku mun doon da lay joxe can can nag amul nu mu toll ci bëri waaye bañ koy yéem waaye amul nu mu war a toll ci tuutaay it bañ koy xeeb iltamas walaw xaataman min hadid donte ne weñ jaaro weñ gu ñuul nga koy jox can la waaye bu leen fàtte yàlla wax na ci alxuraan encore xintaar bu ngeen joxee jigéen xintaar mooy lan ci olof mooy dàmba wala wala bërigo xaalis nga jox ko jigéen ci can yàlla nee na loolu tamit dagan na waaye bu leen fàtte ne yonent yàlla Moussa sàmm na ñaata at pour ñu may ko jabar fukki at wala juróom-ñett wala fukk léegi su fekkee nit day sàmm ñoom ñu ñu lay fay salaire cent mille fukki at pour ñu may la jabar loo joxe ah. un million deux cent ah. un million. un million deux cent nga sàmm fukki at par par weer nga sàmm fukki at par weer ñu lay fay cent mille ñaata la fukki at nga sàmm weer wu nekk ñu fay la cent mille douze millions waaw kon jabar jooju seer na de bu dee waa ji salaire deux cent mille la nag bu dee cinq cent mille la nag ah gis ngeen kon Moussa bala muy am jabar dafa daj lu toll ne mburu ci biir puur yàlla ne ko Suayb bu nekk ci alquran juróom-ñetti at la boo ko mottalee fukk nag fa min andik ah yoolu sa mbiri bopp la waaye daal li ma wax ak yow mooy juróom-ñetti at yi na mat kon gis ngeen ndeke can tuutiwul bu kenn déggati kenn ko joxe can ci jigéen ñu naan waaye waa ji de dafa miir si waa ji garaaw na de déedéet jar na ko di jigéen jar na ko de wala jaru ko jar na li ko ëpp di kenn mënu ko jënd di waaye tamit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam orienté nañu nag nee na wàññi leen can yi ndax sëy bi gën a néew can moo ëpp ëpp barke te nit ñi li ñu war a ut mooy mooy barke gis nga plupart fii ci sunu réew sëy yi ngay gis puukare alal ju bari yëpp trois mois la sëy bi di yem wala trois ans soo dee xale bu jigéen bi waaw yow mu ne la sëy naa ko ba pare ana waa ji mu ne delloo naa ko ndeyam xool loolu ni mu grave te léegi terme yooyu la xale jigéen yi yore waaye naka sa sëy ba sëy naa ko ba pare ah yenn yi moom man duma fa toog di souffrir yàlla tegul kenn léegi nga toog naan ay muñ ay muñ jeex na fi waaw li xale bi waxoon papaam papa ñu ne ko waaw yow duma sa baay mu ne ko wax xoolal père ay baay jeex na de yooyu jeex na bu yàgg léegi terme yooyu la xale yi yor ay baay jeex na feek ay sëy naa ko ba pare ana sa borom kër delloo naa ko yaayam ak moo tax fan la ñu jóg fan lañ jëm luñ jar a laaj ñun ñëpp fan lañ jëm mbokk yi yàlla ne gaa yaa ngi lay laaj mbirum ndono jigéen ak can ak yeneen yu nekk ci ginnaaw yooyu qul lahum ayyuha rasul na nga leen tontu ne leen yow sama yonent ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa amoon lu kenn amul gaa yi moom la ñuy laaj allahu akbar moom la nu wër di ko laaj waaye kan mooy tontu kuy tontu yàlla gaa yi laaj yàllaay tontu ndeysaan ndeysaan gaa yi laaj yàllaay tontu moom du tontu de keroog ba mu waxee sax dinaa leen tontu hee keroog la am problème yoo gaa yi laajee ci zil qarnayni laaj ko ci mbirum weer laaj ko ci ñaata laaj la woon ah ñett asaabul kaaf zil qarnayni ak mbirum weer mais dem leen ba suba yàlla ne ko ne di nga xam ne du yow mu am problème ba moom weer tontuwul après yàlla ne ko bul waxati benn mbir lu dul nga wax incha allah bu neexee yàlla moo tax yeneen luñ ko laajati rek yàlla mooy tontu comme tey bi ko gaa ñi laajee mbirum jigéen ñi yàlla subhanahu wa taala ne ko qul waxal yow muhammad allahu yàlla yuftiikum da ngeen di laaj yàlla moo leen di tontu waaw waaw fi sa'ni nisa da ngeen di laaj ci mbirum jigéen ñi seen borom subhanahu wa taala moom mi bind jigéen moom mi borom jigéen moom mi moom sharia moom mi moom addina wàcce alquraanam pour ñu war ko dund pour lépp war a tegu ci yoon yàlla moomu mooy tontu waaye Muhammad mi ndaw la lu yàlla yónni rek waaw moom dañ ko indi rek pour mu leeral programme bi borom programme bi nag moom mooy wax tey lii lu mu gis nga moo tax mbirum jigéen ak mbirum alal yàlla joxu ko yonent yàlla Muhammad li muy for for for for for yàlla waxu ko yow Muhammad yow yaa ciy def nii yaa ciy def nii mbirum miraas gis nga mbirum jigéen ak miraas alal économique bor yépp ci laal ci wàllu lan lay wax du alal bor ci alal alal la wala du alal mbirum miraas ci alal la wala du alal ah yépp yàllaa ko leeralal boppam waaye yonent bi leeralu ko yàlla moo ko leeral ci alquran parce que ñaar yooyu dafa dafa dafa doy waar mooy mbirum jigéen ak alal moo tax yàlla subhanahu wa taala bàyyiwu ko sax ci loxo yonent bi moo ko leeralal boppam jalla jalaaluhu yàlla ne ko qul waxal allahu yàlla yuftikum moo leen di ubbee li ngeen di laaj moo leen di tontu fii hinna ci mbiru jigéen ñi waaw li ngeen di laaj yëpp yàlla dina leen ko tontu ndax dina donn ndax buñ koy denc dañ ko jox can waaw waaw waqad aftaakum fihinna yàlla dina leen ci tontu ba mu leer wa bayyana lakum maa lahunna yàlla wax leen jigéen ñi li ñu moom wa ma alayhinna ak ak yi nga xam ne moo tegu seen kaw nga kon loolu leer na ne mbirum jigéen yàlla subhanahu wa taala moo ko leeralal boppam wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne dinaa la wax jigéen ñi li ñu am ak yan àq moo tegu seen kaw yàlla yemul ci loolu mu ne wa ma yutla alaykum fi lkitaabi fi yataama nisa yàlla nee na dinaa leen wax subhanahu wa taala sunu boroom wa ma yutla alaykum fi yataama nisa dinañ leen leeralal ci li nga xam ne wàcce nañ ko ci yéen ñu koy jàng ci njëlbeenu saar bi bu ngeen demee ci bopp saar bi yaa ayuha nnaasu ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida dinaa leen fa leeralal ci bopp saar bi loo xam ne dina doy ci yéen mu leer nañ laa taxtaajuuna maahu ila man yuftikum aydan dootu leen demati fenn ginnaaw bu leen yàlla leeralee mbir mi ba pare dootu leen dem fenn di laajate dina doy bu ko yàlla waxee ba yonent bi leeralal leen ko jàngal leen ko di ngeen xam ne mbir mi dina doy kon dootu leen dem di laajee is bayyana lakum anna man kaanat taxtahu yatima yàlla leeralal leen ne le képp koo xam ne ci yéen jirim bu jigéen dafa nekk ci suufam mooy fi yataama nisa jirim bu jigéen baayam faatu ñu bàyyee la ko ak alalam ñaari mbir la la islaam sant ci jirim boobu bi ci njëkk mooy mën nga kaa denc garde alal ji garde ko muy garde nga alalam garde nga ko moom beneen bi mooy mën nga kaa bañ a denc waaye da nga koy jox alalam mu ànd ak moom ca keneen ku ko denc mu dem ànd ak moom léegi nag problème bi amoon fii mooy da ngay gis ku yor jigéen mu am alal nga yar ko bëggoo ko denc ba pare bëgg a garder alal ci munul nekk yàlla ne déedéet da ngeen di leen di jox kay ñu dem ànd ak ñi leen bëgg ñu takk leen dem parce que kii daal dafa ñaaw bëgguma koo takk waaye alal ji moom du dem bu ci langaamu moom kay imma shakiran wa imma kafuran li gaa yi naan wasin baa dem tool waaw su fekkente ne da ngaa intéressé wu ci alal ji kon na la ndaw si intéressé su fekkente ne intéressé woo ci ndaw si kon bu la alal ji intéressé waaw waaye lekkuma yàpp naa naan ci ñeex bi mënul nekk loolu nag da daan am yàlla tere leen ko su suñ borom subhanahu wa taala loolu lay wax fi yataama nisa ci jirim yu jigéen yi suñ borom neneen am na ci yéen ñoo xam ne dañoo yar ay jirim yu jigéen laa yargabu fi nikaahiha xemme mu leen pour denc jigéen ñooñu pour ay raison yoo xam ne yéen a ko xam ngant yu ngeen am ba mun leen denc jigéen yooyu kon nag fal yutiha maalaha na ko jox alalam wa yuzawijaha gayra keneen takk ko moom waa ji mu dem uti keneen ku ko ku mu takk ku ko ku ko neex amma nag duma la takk loolu tamit da ngay dund tey da ngay ñëw tey ci sunu dëkk bi nga fekk ku fase jigéen wala ku am ak jigéen problème yenn saa yi jigéen lu woo la téléphone laaj la ne la man de dama am ak sama jëkkër problème nga ne ko waaw mu ne la trois ans ngi nii sëy bi tasul dundalul ay doomam dundaluma ñooñu sax loolu sax dafa tuuti trois ans sax tuuti na yenn saa yi nga gis cinq ans fase woo ndaw si takk loolu àq la ku ko def góor ku ko def ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee ci kanam yàlla di nga am problème kenn warul bunduxataal jigéen jigéen da nga ko bëgg denc ko ngir yàlla dem nga ba mënatula ne nekk fa imsaakum bi maaruuf aw tasrihum ihsaan ànd leen ànd bu rafet dem nga ba mënatula nekk bàyyi ko mu dem mu di keneen nga wuti keneen waaye yow du ma la takk du ma la fase dinaa la laxal comme ni ñuy laxalee xobu garab ñenn saa yi nga gis am ñuy def loolu ñeneen ñi dañuy profité kii daal naa ko delloo su ma ko delloosoo dóor ko dóor yu métti bàyyi ko mu dem loolu àq la loolu musiba la loolu tamit du benn diine li am Sénégal mooy léeg-léeg nga gis féministes yi di attaquer islam naan gis nga islam islam islam fekk xam ngeen ne Sénégal lii góor ñi di def jigéen ñi islam santaane ko mais problème bi mooy bu amee ba pare nag léegi ñu ni ko ci lislaam loolu mooy metti fii laa wax ci sunu dëkk bi kenn du laaj lislaam booy def dara da ngay def lu la neex ba pare su problème amee léegi dañuy doog a wax islaam jaaduwul kenn du toroxal jigéen yenent bi nee nag kenn du teddal jigéen lu dul sang kenn du toroxal jigéen lu dul baadoola naka ngay amee ak ay nit ay doom ba pare di ko toroxal ah moo tax paa yu bëri dañuy dañuy dañuy abandonné seen jabar abandonné doom yi duñ ko jox mu lekk xoolal fan yi dégg ngeen ko ci rajo bi kilifa gu mag a mag a mag a mag a mag jabaram dem tës wala dégg ngeen ko wala déggu leen ko naan joxul doomam dund yéen a ma ko gën a dégg da ngeen a ragal dégg ngeen ko tey sax wal fajiri rek waajooju tudd saa njoogu tooñ na ko tey wal fajiri une heure man déglu naa ko waa ji tooñ na ko tey ci affaire boobu ndaw si wax xam ngeen loolu jaaduwul lii day am da ngay gis ku takk jigéen mere ko bàyyi ko boole ci doom yi ku am jëkkër mere ko bàyyee ko boole ci doom yi doom yi moom sax ay ay victime la ñuy doon ay victime bu ñu àndeek seen baay seen yaay alkuna bu ñu àndeek seen bu ñu àndeek seen yaay baay ji alkuna loolu du diine moo tax gis nga sëy yàlla dene ànd leen ngir yàlla bu ngeen muntul ànd ngeen tas waaye bu ngeen tas ban tas tas bu rafet est-ce que ñun jàpp nañ ne ni l'islam wax noonu la ñuy séyee est-ce que loolu la ñuy séyee yàlla dene sax même jigéen bi boo koy fase da nga ko yóbbu ba marché jëndal ko valise def ci ay yére ba mu fees del del del del del del del del del del del del del nga doog ko ne fase naa la kan mooy def ci ñun fii loolu ah fii gars yi ba la ñu lay fase dañ lay dóor ba nga mokk ba pare bule la ci biti ba pare tëj néeg bi ne bagage du fi génn yàlla waxu loolu yàlla na jigéen ñi bu ngeen leen di fase allahu akbar na ngeen leen jox yóbbal ba pare fase leen fase bu rafet loolu mooy lan keroog bi nga koy bi nga koy takk da ngaa defoon ay njaga njaay ak ay oto ñu ran di def piim piim piim piim di yuux gars yi naan la bul dóor bul saaga américain yi lan la indil foofu lañ juumee nag wala ñu ne jullit lañ la indil ñu ne américain lañ la indil xam ngeen ne américain du sëy sëyu lislaam foofu la gars yi juumee ndeysaan wala bu ñu jëli séddu loolu la ñu wax jigéen ñi loolu la ñuy way oto yi di yuuxu ñu naan bul dóor bul saaga américain lan la indil juum nañ dañoo waroon wax jullit lan la indil waaye dañoo juum ndeysaan allahu akbar ah noonu nga defen xoolal ba pare tey muy ñibbi yàlla nee na noonu na ñibbee noonu jàppal ci loxo bi nga dem ba ci kii la ko mayoon nga ni ko kii de yaa ma ko mayoon mu ne la waaw nga ne ku baax a ngi nii kii de xam naa yàlla jeexal suñu diggante rek ah mu ngi nii nag yàlla na ko yàlla may ku ma gën loolu lañ la wax nga def est-ce que noonu la ñuy fasee tey ba pare te balaa ngay def loolu yàlla ñaata wax ñaata weer la wax na toog ci biir kër gi bu mu génn ah trois mois na toog ci biir kër gi na toog ci biir néeg bi wul sax biir kër gi ci biir kër gi laa tuxrijuhunna min buyutihinna loolu la yàlla wax iza tallaqtumu nisaa fa talliquhunna ah waxsul idda loolu la yàlla wax ba pare mu ne laa tuxrijuhunna mu leen leen génne de ñun bis bi nga ne fase naa la maa ngi dem te ñëw naa la fi fekkaat bal sax ndaw si léegi ke du xaar nga ni ko fase naa la wala maa ngi dem te ñëw moom kay boo ko nee bon mën nga dem seen këram wala nga ni ko rek soo ñëwee man gis naa léegi jigéen ñi la ñu xewal boo leen ne fase naa la bu ñu ñëwee ci kër gi di jël seen bagage dañuy indaale bale tapis bi sax dañ koy def ak duuy duuy bi man gis naa contact bi sax ku ko buddi mais loolu ci lan la bokk ma ma des sama fou quoi maa tey mais ëllëg si biir nag léegi ngeen am ay doom ndeysaan ngeen bëgg a dajawaat moo tax nañuy ànd ànd bu rafet suñ demee bay tàqalikoo ñu tàqalikoo ànd bu rafet parce que dund bu guddee rek lu nekk xëj na ci léegi nag imagineel yow mi defoon loolu tey ñu ne dañuy dajawaat léegi nag xale yi yenn saa yi gis naa benn paa boo xam ne bi mu abandonné doomam yi depuis ñu nekk ay xale mu dem yoonam xale yi màgg tekki yóbbu seen yaay màgg paa bi ne damaa bëgg a dem màgg de booy na ko bon da ngay ñëw rek kiyaat meer bi quoi ngay ñëw rek kiyaat meer bi mu ne kiyaat lan ñu ne ko ah kiyaat rek ñu kii bu kiyaatul rek doo dem màgg te léegi neen daa bëgg a dem màgg léegi nag mu war a ñëw nag léegi ci ñëw ñëw ñàkk pexe ma loolu musiba la ñëw gàcce waaw ñëw di jooy jooylu te xam nga ne lii jooy du ko dindi yooyu yooyu yooyu ab julit yooyu ab julit na ko moytandiku mbokk yi yooyu ab julit na ko moytandiku nañu ànd ànd bu rafet jigéen ñi suñuy mbokk lañ suñuy nawle lañ suñuy sœur lañ yonent bi nee na an nisa shaqaiqu rijal jigéen ñi ñooy ŋàdd góor ñi xam ngeen ŋàdd ku am guro soo ko tojee ci digg bi ñaata ngay am benn bi mooy góor ñi benn bi mooy jigéen ñi munoo dem saa ñoom munuñu dem saa yow kon nañu ànd ànd bu rafet suñuy taxalikoo ñu taxalikoo taxalikoo bu rafet loolu la ñu yàlla subhaanahu wa taala dénk mbokk jullit yi suñu borom ne mu ne fi yataama nisa ci jirimu jigéen ñi allaati jigéen ñi nga xam ne laa tuuna hunna du ngeen leen jox maa kutiba la hunna li yàlla wax ci ñoom loolu mooy lan mooy bëggul leen leen a denc bu fekkee bëggul leen leen a denc ndax bu ngeen leen dencee àq yi benn ndono bi day day day day taab bi beneen da ngeen leen koy delloo beneen bi mooy can bi da ngeen leen koy jox kon nag ah fekkee ne loolu bugg leen ko dee na ngeen leen jox seen alal ñu dem keneen takk leen yéen tamit nag ngeen dem takki keneen wala yahillu lahu an yaxbasaha fi baytihi li ajli maaliha daganul ci yow góor nga tëj jigéen ndax alalam ko duma la jox alal ji te kenn du la takk loolu moom daganul mu ne wa in kaanat jamila wa araada an yatazawajaha fali yutiha mahra su fekkee ndaw si dafa rafet nga xemme ko bëgg koo denc bëgg a denc alalam bul avantage rek bëgg naa ko denc ndax alal ji maa ko yor waaye can bi tamit da nga koy jox képp ku takk jigéen nga yéene ne du ma ko jox can yonent bi nee na yow njaalookan nga waaw est ce que ñii rek la mu ne déedéet wal mustadafina min al wildaan ak ñi nga xam ne dañoo néew doole nekk xale da ngay gis borom kër gu gaañu gaa yi ñëw taf tafee kër gi jaay ko xale yi ñoo bokk ndey ak baay amul sax kër goo xam ne wujju la ñoo ngi nii juróomi xale la ñoo bokk ndey ak baay seen yaay ngi nii ma ma ma mbokk yi lu ñuy jaayee kër gi bàyyi leen kër gi suñ demee ba mesure nag ba ñoom seen bopp ñu gis ne ku nekk soxla na sa alal ñu jaay kër gi séddale leen ko ku nekk li nga ci war a am nga am ko mais ay xale yu ndaw am na ñoo xam ne xam nañ ne kër gi buñ ci jaayee danañ ci am danañ ci am benn santage da ngay gis tey bu ñuy jaay kër dañuy am santage ñii mirage santage ñii mirage ak ñii fekke waaw da ngay gis am na ci nit ñoo xam dañ naan man de bu may mirage cent yu nekk vingt cinq lañ may jox cent mille yu nekk am naa ci vingt cinq mille loolu waa ji bu dee milliardaire ñaata ngay am ah am na ñoo xam ne subhanallah dal nañu yàlla sàmm moo tax tey ñu am problème mu ndono nit ñi nekk ci ay jafe soo demee tribunal ñaar moo fa ëpp problème miraas ak sëy tribunal chaque jour juge yi dañ koy wax lu tax parce que jaarale wuñ ko yoon ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee mu ne sunu borom ne wal mustadafina min al wildaan ak ñi néew doole ci xale yi bu leen leen toroxal bu leen lekk seen alal bàyyi leen wa an taqumu lil yataama bil qist maa ngi leen di dénk na ngeen taxaw tem ci mbiru jirim yi ci maandute sàmm leen toppatoo leen bil adl bañ a lekk seen alal jàngal leen yar leen wàññi leen ba ñu fàtte sax ne ñoom seen papa dafa gaañu waaw ndeysaan waaye tey ndeysaan loolu jeex na yërmande moo jeex ci kaw suuf yàlla nee na wa ma tafalu min xayrin fa inna allaha kaana bihi aliman gis ngeen aaye bi wala daggit bi bokk na ci aaye yi nga xam ne mbokk yi daf ñuy soññ ñu bañ a tayal ñu bañ a sàggan ñu bañ a yaafuus ñu bañ a yàccaaral ci jëf ju baax yàlla nee na wa ma tafalu min xayrin lépp lu ngeen mën a def ci ci lu baax wala min la indi kon nu mu mën a toll ci lu ngeen mën ci lu baax ngeen koy def fa inna allaha kaana bi alim yàlla xam na ko du réer mukk waaw boo déggee lii ndax ma kon war di ngaa yaacaaral ci lu baax ak nu mun toll nag Souleymane gis ngeen gars yi dañ ko doon jox addiya benn xorondom xoolal xorondom xam ngeen xorondom xorondom mooy lan ah mooy melentaan yu ndaw yooyu yu ñuul yu xaw a mag yi te yàlla tuddee ko ci alquran suratu naml xorondom bi ne man de damay joxe ad Souleymane sama kado sama addiya daa di matt benn daggitu ceeb daggit xam ngeen melentaan mënul yëgu mënul yenu saabu ceeb wala mun na ko yenu benn dammitu ceeb la matt ñëw daa di indil Souleymane gars yi di ree waaw lii Souleymane ne leen lu baax du réer yàlla waaw yàlla du sakk jëf yàlla ne wama tafalu min xayrin lu ngeen mën a def ci lu baax borom xam-xam yi ne alxayru kasir waaye wa qalilun failuhu lu baax dafa bëri waaye ñi koy def ñoo néew lu baax bëri na de mais li koy ñi koy def ñoo néew fii lan lan moo ñu dajale fi def lu baax ñeen ngeen di dégg lu leen dajale foofu ñu la ñoom ñu ëpp rek leer na fii rek leer na léegi rek lu baax dafa bëri torop mais ñu néew ñoo koy def ndeysaan ñu néew ñu néew ñoo koy def jaamu yàlla guddi naafila guddi baax na wala baaxul moo gën a baax ci jaamu yàlla yi ñun ñu toog fii ci jumaa ji benn ci man est-ce que dinaa naafila guddi ku nekk fii na la seet boppam suñ doon compter fii ñii naafila guddi ak ñi dul naafila guddi ñen ñooy ëpp ngeen defe ne jàng alquran ni mu amee tiyaaba soo jàngee benn xarf ñaar tiyaaba ngay am yen demi ne laa aqulu alif lam mim xarf bal alif xarf laam xarf mim xarf soo ne alif laam mim ñaar tiyaaba ngay am fanweer ñan ci ñun fii ñooy xëy di jàng xisib par jour néew na xoolal lu baax nu mu bëree imaatatul aza ani tariqi sadaq nga fekk sax luy gaañaate ci yoon nga dindi ko am nga tiyaaba xoolal lu baax dafa bëri waaye borom xam-xam nee nag ñi koy def nag ñoo bëri nag ñi koy def ñoo bëriwut te yàlla dafa ne fastabiqul xayraat njëkkante leen lu baax lu baax dañ ko war a njëkkante kon yàlla nee na mbokk yi wa ma tafalu min xayrin na ngeen yëg ne lépp lu ngeen mën a def ci mbaax fa inna allaha kaana bihi aliman allahu akbar wallahi yàlla nekk na koo xam ne xam na loolu nga def te dinal ko bindal ci téere boo xam ne du maxe du effacé wu du yàqu jàng nañ ci hadisu waaja ki nga xam ne bi mu dekkee yowmal qiyaam taxaw ci kanamu yàlla yàlla daf koo génneel juróom ñeen fukki registre ak juróom ñeent registre bu ci nekk mu ngi tolloog guddaayu bët sa bët fu mu yem noonu la registre bi toll registre yëpp ay bàkkaar la ñaata registre la juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent registre bu ci nekk sa bët fi mu yem foofu la foofu la noonu la toll guddaay waaye registre yëpp lu ci nekk ay bàkkaar yàlla woowaa ji ne ko yaa def lii mu ne maa ko def kay yàlla mu ne ko loo ci xalaat mu ne ah man kay xaw ma ci dara fi mu nekk nii yàlla mu ne ah waaw xaaral dencaloon naa la fi benn feuille bu ndaw léegi xaaral ma génn feuille bi ñu peese ko ak sa registre mu ne ma mu ne ma ne yàlla bul ma foowee waaye yow tamit lu tax mu wax loolu. yoo xam ne feuille bu ndaw ak registre juróom-ñeent fukki registre ak juróom-ñeent mu ne yàlla yow tamit ah feuille bu ndaw bi. yàlla daal di jël feuille bi teg ci balance jël registre teg ci balance feuille bi daal di daaneel registre yi allahu akbar lan moo nekk ci registre feuille yi laa ilaha illa allah bu mu defoon sellal ko ci kanamu yàlla kon gis ngeen lu baax lu tuuti la defoon waaye comme dafa selloon ngir yàlla yàlla dencal ko loolu tey moo ëpp bàkkaar yi mu def yëpp kon lu baax bu ko kenn xeeb mbokk jullit yi lii mooy sunu dars tey yal na yàlla def ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu